Hey guy, the king, the goat, the Hall of Fame, the man who got the keys, Mr. West. Guys, salaamaaleykum salaamaaleykum dal jàmm sur ma chaîne YouTube Weshow TV comme ni ñu koy faralee chaque fois. bon gars tey damay ñëw waxtaan ak yéen si benn vidéo boo xam ne daa am solo lool lool lool ba bu ngeen kenn jël seen temps bu baax ngeen déglu ko en ce moment là ki ñuy woowee PDD Puff Daddy benn producer la woon koo xam ni moom moo bi Biggie Notorious découvrir na beaucoup d' artistes biir États-Unis produire na beaucoup d' artistes biir États-Unis tout récemment def na tamit production ak ki nga xam ni moom moo di Burna Boy moom la ñu déclaré ni en ce moment là dafa bokkoon sur beaucoup de choses yoo xam ne état sexuel mooy maanaam jàpp li nga xam ne moom moo di wàllum góor jigéen ak li nga xam ne moom moo di violé ak li nga xam ne moom moo di trafic jigéen yi nga xam ne daan na ko def durant toute ça. carrière li tax tey ma defal leen ngeen bàyyi dëgg dëgg dëgg dëgg si monde bi fi mu mujjee surtout les artistes sénégalais que ça soit si cinéma bi nga nekk que ça soit artiste international nga si peintre bi nga nekk que ça soit si musique ba nekk dëgg la am ngeen gëm-gëm am ngeen bëgg-bëgg a dem si international mais international y a beaucoup de xam ni il ngeen bàyyi ci xel dëgg la am na li nga xam ne mu di bénéfice mais am na quelque de ce fait nag tey jii nii dama ñëwoon jox leen yenn exemple yi nga xam ne ces derniers temps depuis fi xam ne moom moo di mbill cause bi ba ki nga xam moom moo di fii nii ndànk-ndànk ñu ngi rey des artistes yoo xam ne renommée internationale ñoo xam ne liggéey nañ bu baax si industrie hollywoodienne bi lan lañ nekkee di leen toroxal ndànk-ndànk pour wàññi li nga xam ne moom moo di seen ayib réduire leen en néant dañuy commencé si nga xam ne moom moo di Bill Cosby Bill Cosby dafa nekk benn artiste comédien boo xam ni. mën naa ne bokk na si ñi nga xam ne ñoom ñooy pionnier wu cinéma wu États-Unis mooy maanaam noir yi cinéma noir États-Unis ils ont beaucoup influencé ñi nga xam ne moo di yi nga xam ne am nañ ko tout récemment mooy maanaam ay Kevin Hart même su fekkee au début place bi nga xam ne lañ leen joxoon que jusqu'à présent benn répercussion la boo xam ne si monde mondial noir yi pour noir yi ñu accepter leen il doit faire rire mais nag ñoom Bill Cosby leur stratégie mooy ok. jox ngeen ma benn affaire boo xam ne peut-être da ngeen jàppee ne c'est mais dañuy profité si loolu pour faire passer des messages jamono ji nga xam nag Bill Cosby mu ngi si diggantooleem ak la famille Robinson bi nga xam ne mu ngi fa tuddoon Cliff mu nekk benn série boo xam ne tey jii nii moom moo yëkkati li nga xam ne moom moo di moom moo tax tey jën nii mu nekk benn genre légende parce que série la boo xam ne y avait beaucoup de saisons ndax majeure partie yoo xam ne jeunesse yi commencé woon nañu màgg dugg si li nga xam ne moom moo di culture cinématographique bi. moment boobu noonu nga xam ne mu ngi explosé moment bu mu dekkee si suuf selon certains disent mu doon def des choses atroces mooy maanaam pouvoir bi nga xam ne amoon na ko influence bi nga xam ne amoon na ko si monde bi daf ko doon utiliser pour des choses pas musulmans pas catholiques mooy maanaam violé ay xale xam nga détournement de mineur façon accusation bu nekk jox nañ ko ko léegi nag fii dafa am ñaari sujet dëgg la. nit ku nekk xam nga maa ngi koy wax chaque fois samay vidéo xaalis boo demee benn moment di ko commencé am succès boo demee benn moment di nga di ko commencé am maanaam doo toon ànd ak li nga xam ne moo de sa sago tu te crois tout permis da ngay jàpp ne lépp loo def rek c'est légitime et c'est normal da nga nekk nit koo xam ne da ngay am doole mais malheureusement nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di tubaabee surtout juif yi ñoom li nga xam ne moom lañ def mooy utiliser toujours personnage yooyu noonu pour yàqal leen li nga xam ni moom moo di seeni carrière du ma perdre sama temps nag si ki nga xam ni moom moo di Michael Jackson ak Tupac parce que je crois que ni beaucoup de personnes gis nañ li nga xam ne moom moo di seen carrière nu mu fulgurante mais gis nañ aussi tamit si yan anam lañ leen la ñu génnee àdduna parce que boo xoolee noirs yi nga xam ne moom moo di États-Unis soo deewul si li nga xam ne moom moo di ay tiré bal da dee si li nga xam ne moom moo di wàllum drogue ils vont tout faire pour minimiser même bu fekkee ñoom ñoo la rey ñoom ñoo la éliminer ñoom ñoo la sacrifier ñoom ñoo la effacer si li nga xam ne moom moo di der nga xam ne moom moo di kii excuse ne soit c'était un drogué wala koo xam ne dañ ko rey ñu ma si bëri nag mais li ma leen mën a wax foofu noonu mooy au début gars yi bàyyi nañ leen ñu nekk di dawal ba ñu am li nga xam moom moo di succès mondial bi nga xam ne am nañ ko mais le moment où gars si li nga xam moom moo di wàllum politique ni am na benn genre appartenance Black Panther bi xam ne yàgg nañu xeex pour droit wu noir yi biir biir États-Unis que ça soit à travers ses sons waaye tous ces sons la yoo ne ay messages yoo xam ne maanaam day côté la en ce ñi nga xam ne comment bi ñu ko comprendre si nañ leen nga xam ne moom moo di terre bi mais damay tëb ki nga xam ne moom moo di Michael Jackson ak Tupac ma ñëw si ki nga xam ne moom moo di l'un des best singles bi de tous les temps biir États-Unis mu di kan mu di R. Kelly Alkane nekk na benn artiste boo xam ne beaucoup de jeunes fii ñëpp bëggoon nañ ki nga xam ne moom moo di Alkane à travers sa voix douce à travers li nga xam ne moom moo di R&B bi mu doon dawal mbëggeel bi mu doon wone xam nga l'amour bi nga xam ne moom la doon jàngal jàngal nit ñi nekkee malheureusement li nga xam ni moom la ñu publier si moom tout récemment si Netflix defal nañ ko benn genre documentaire boo xam ne accusation nga xam ni beaucoup de femmes jàpp nañ ne c'est un obsédé sexuel dafa doon agressé li nga xam ne moom moo jigéen ñi dafa doon jaay li nga xam ne moom moo di jigéen ñi y avait beaucoup de choses atroces yoo xam ne jigéenu États-Unis nangu nañ ko encore fii nii peut-être lan moo tax question bi xam moom laay posé wu chaque fois mooy moo tax gars yi dénoncé wu nga xam moom moo di actes yooyu le moment où Arkeli mu ngi doon dund. parce que c'est pas la première fois gars yi que Alkali am problème bii nii même bu fekkee ne amoon na benn problème ak ku ñuy woowee Alia benn artiste boo xam ne jigéen la elle faisait partie des artistes meilleurs artistes fi nga xam ne moo di États-Unis malheureusement mu dee à jeune âge bi muy takk ki nga xam ne moom moo di Alia ñëpp dañ ko jàppe woon dafa def li nga xam ne moom moo di détournement de mineur ba mën a fa takk benn mineur

depuis moment boobu noonu ce que je veux vous faire mooy tey jii nii comme je vous ai dit si mille causes bi dañ nga construire li nga xam ne moom moo di sa ah, sa ñu bàyyi la nga construire li nga xam ne moom moo di sa carrière ba keroog nga toll fi nga xam ne tu te crois intouchable wala nga nekk benn référence boo xam ne nit ñëpp dañuy basé wu si yow nit ñëpp dañ lay topp li nga xam ne moom ngay def un certain jour seen li nga xam ne moom moo di seen i preuve ak lépp li nga xam ne dajale leen ko pendant beaucoup d'années ñu jël ko ñu xëpp la ko yàq sa carrière yàq sa lépp Akili fan la mujjee dem na prison fi nga xam ne moom moo di Spotify ak yeneen kii marque yu bëri nga xam dañ nañ ne effacé woon nañ lépp li nga xam ne moom moo di discographie mais étiquettes yi muy son muy fépp foo xam ne liggéey na fa rek effacé nañ li nga xam ne moom moo di discographie mooy maanaam musique bi nga xam ne indi nañ ko ñu dawal tuuti ñu amaat beneen daanaan beneen daanaan boo xam ne man personnellement bokk na si li nga xam ne moom a gën a métti parce que dafa nekkoon benn acteur boo xam ne selon moi mooy le meilleur acteur mondial tous les temps bon y aura qui vont me dire Denzel Washington y aura qui vont me dire xam nga Morgan Freeman y aura des personnes qui vont me L. Jackson a beaucoup de personnes yoo xam ne même mooy acteur blanc xam nga yoo xam ne mën nañ ko teg mais pour man Will Smith par sa versatilité polyvalence bi nga xam ne am na ko que ça soit comique Eh, eh, jaxlo que ça soit façon série bu nekk maanaam façon étiquette bu nekk Will Smith def na ko c' est l'un des meilleurs artistes de tous les temps xam nga def loolu moo gën a wóor sinon day nekk quelque chose boo xam ne c' est subjectif même bu fekkee pour man mooy meilleur acteur de tous les temps mais malheureusement fii ba sax moo laa gën a indigné parce que ils sont passés à le ridiculiser devant tout le monde de façon médiocre de façon injuste et de façon malhonnête moom nag kenn accusé wu ko nga xam ne moom moo di ay viol peut-être mooy l'homme d'or bi nga xam ne ñëpp soxla nañ ko mooy nit bi moo gën a compréhensif mooy le nga xam ne moo gën a nopp mais au fur et à mesure dem dafa am benn genre moquerie boo xam ne dañ ko teg dafa am benn genre ñaawteef boo xam ne dañ ko ko teg mooy maanaam à travers sa femme bi ñuy woowee Jada Pinkett Smith non seulement humilié na ko tant de fois si wàllum li nga xam ne moo di histoire Tupac bi xam nga jabar ji a nga xam ne moom moo nga xam ne moom moo di carrière wis génnee mit boobu noonu respect boobu noonu l'homme fort bi nga xam ne gars yi moom lañ ko doon gis si film yi mooy nag image bi nga xam ne moom la doon joxe mooy bi jabar ji toogee taaj ko si li nga xam moom la di ko wax ni trahé naa la ak diw trahé naa la ak diw trahé naa ak diw quoi xam ne de façon innocente de façon tranquille quoi loolu nu mu ba choqué monde bi yëpp ba tey ñi nii ñu gis ndànk-ndànk ñuy dem ki nga xam ne moom moo di Will Smith yàqu ba keroog ba mu demee si li nga xam ne moom moo di cérémonie boobu noonu jël li nga xam ne moom moo di loxoom dóor nit que devant publiquement humilier boppam encore ndax lan benn femme boo xam ne tey jii nii moo détourné xaram moo yàq xaram ko en fait ils sont passés par Jada Pinkett Smith pour jël ki nga xam ne moom moo di Will Smith ko wàccee ñi nga xam ne moom moo di ñu tal ñu toll si ki nga xam ne moom moo di Pinini Pinini nag moom bosam moom wax dëgg fa yàlla beaucoup de gens s'y attendaient parce que la c'est pas la première personne ne dégg nañ fi mu yoo xam ne ñu ngi naan peut-être tamit moment moo jot quoi et je répète. Pemidi mi nga xam ne accusé nañ ko rey moo rey Tupac Pemidi bi nga xam ne accusé nañ ko moo sale boulot yu bëri moom moo ko def si industrie bi Pemidi bi nga xam ne accusé nañ ko depuis jamonoy kees yi dafa jàpp xale bu jigéen bi di ko maltraité mais jusqu'à présent pendant beaucoup si mais le moment jeex na le moment où musique am aay na le moment où il fait partie des muy moom muy Kanye West muy Timbaland nga xam ne si moment quatre-vingt-dix mi ba léegi di c'est l'un aussi tamit des percusseurs ki nga xam ne moom moo gën a pousse bii bi ba R&B bi toll niveau bii nii ñu jël ko ñu wàccee ko nag gaa yi li tax ma defal leen video bi c'est pas que dama bëgg wetti li nga xam ne moom lañ leen di tuumaal attention ku si nekk nga xam ne cité naa ko si vidéo bi et y aura d'autres artistes yoo xam ne dinaa leen ñëw wax wax lan moo tax ñu ñu jàpp leen wax lan moo tax ñu leen di wax loolu dinaa defar des bon des de façon xam nga en version wolof parce que sûrement y a des personnes yoo xam ne dégg nañ ko en version mais li nga xam ne moom laa bëgg ngeen bàyyi xel mooy képp koo xam ne noir nga américain nga c'est très difficile tey jii nii nga continuer téye sa ayib ba keroog ngay dee nga continuer nekk benn genre légende dama lay wax depuis Martin Luther King ba jamono yi nga xam ne ñu ngi si di amul kenn koo xam ne wàccewu ni la amul kenn koo xam ni gaa yi jàppewu ni la benn nit boo xam ne tu as été nul si liggéey bi nga xam ne def nga ko waa gars yi lii moo nekkoon li nga xam ne moom moo di vidéo bi ñu joxante daje si beneen vidéo the king da goat the hall of fame the man who got the keys jaajëf